avec côté tout est possible. mais tey gis nga fi du pël. waaw fii ngeen pël tey. tey Fatou li ngay daaj nii lan la lii la ko tudd. doon li la fii la tey rek ma toj fii. kon tey nga ñuy doon. mais Fatou dama la de. gun gun gun gun tak. gun gun gun gun tak. gun gun gun gun tak. kay rabax rabax rabax jot rek gun gun day ànd ak toog. non yéen su ngeen jënd leen. mais du ngeen fi ma jëndee moom. xoolal fi ma génn. yow moom ñiin nga ba tey moo fushar. ah moo fushar. moo fushar. waaw fushar. ba mu ris moon jiis. tey sama gars yi mais je te fais du grand amour. la buujoo nag. mais nag li nga wax ba mu tudd. ba la. dégg nga nag moo xam ne benn affaire. waaw war nga mën a am réew yu neex jooy accueillir client. waaw réew yu charmant. yu nooy sax. waaw ah waaye parfois fii ay doyen dañ fi dugg parfois nga raay leen fëgg. waaw olo olo réew sóobal la. ak waa Espagne ak glace. waaw du leen neex li mu leen wax <laughs> a <laughs> mais je te fais du grand amour. fii la bu joo. xelil rusul lii. man xel ma ci bisa ci ji buy bi. ko. Dakar jam tamaré man. waaw mais peut ci loo ne. ah ci loo ne. nekkuma ci leen loolu nama leen mais a naxe. non si lan noonu ci lan. jaaru ñàkk njëriñ gi ngeen fi jaara ma metti. non peut-être xam nga nag amuñu. du ko naan du ma ko naan tamaré laay naan du ma ko naan. je ne veux pas boire tamarin. loo waaw moo la xam nga tey la moo ñu dal. dam rëbb sooy. dañoo sooy. dañoo sooy. danoo sooy. dërëm yoruñu ko. billaahi bu leen ma wax loolu. waaye yow ñu ngi nii toog. Ah. waaye yow kon li ngeen di naan fu muy jëm. affaire boo métti sax non kii da koy da nga koy def reliquat rek. ak ah. ko fu ko ajoon rek. barke mais yéen a ngi defar ba mu tëb. ba mu tëb. mais fi ne nii daal dil bi fi xew sama gaa yi. waaw. dil boo xamante ne. dil ci kaw dil. Poté ah. bu dul dilu xaalis bu ñu ko wax. ma yow man xam ngeen ma ñàkkee noonu bopp. waaw kon aja ma wax lu amul njariñ. ñëwal kon. man may daqaar bu ma daanoo am njariñ kon ñëwal. xale bi ma romb ci mbedd mi. waaw jóge tuuti ngeen fekk ko fi. Hmm. tilim gi mu tilim. takk gi mu takk. ñu sànq naan ma nii ba di Youssou laa bëgg a gis ñaari fan am naa. dem sànq dem seeti Youssou Ndour dëggul day ah. na du ko wax ñaari fan. rien que pour bëgg a teg Youssou Ndour bët. te de a a dil lu ne. waaw waaw. fi mu ne Youssou la bëgg a gis. fi mu ne bëggul lu dul nit ñi yóbbu ko ca Youssou. man dil amul xaalis non dafa ay fan yooyu yëpp fa même dañoo baax de. non Kaleer dafa naa loolu mën naa ma doon maa di dramé yow nga doon nga doon pour la nga doon poulet. <laughs> sa na ne mais loolu mën naa nekk. mais yow poulet yooyu de poulet naan soow ba taxaw. mais da koy mais ci koor la nekk waaye côté ci koor la ñu nekk. ah koor ngeen a jeex. la ñu nekk xale yi daal du yàgg dara xam naa dinañ fi jaaraat dañoo sangu ji. xala yaa nga mel ni. yooyu état bi. bonsoir bonsoir. ñëwaat ngeen na ngeen def. ay yow sol yërëm naa leen nag de. ah gis nga xam nga Youssou jaral nañu ko. ndeysaan xale bi de moom mi ngi jeex ci xanaa perte nga 12 kilos toogal. ça va ça va ça ngeen nekk. ñoo ngi nii rek ñu ci la nii ba tey. ah yàlla baax na toog leen ma ne sama place bi fi la ñëpp yi teer. Mhm. mën naa am bala ngeen lekk bay dem. nga gis léegi ku ñëw. ma ne xaaral naa gunge gunge comme sama waaye nag am naa yaakaar trop ci yéen. Mhm. am naa yaakaar ci yéen. yàlla baax na. xam naa war ngeen a xiif ma defaral leen ngeen lekk. waaw ah tey moom ceebu jën bu xonq cur laa togg. ah déet maman. ah maman yow tamit li nga jeex dina yokk di. ah ci yërëm naa ko. allo Bouba Ndour. ça va naka def waaw. mais euh, Bouba Bouba defal naa ko man maa woo quoi. waxal ma njaga suba bu mu xëy TFM na dem directement Sorano. ok waaw na dem direct sur nous pour les derniers réglages quoi ok xam nga laa lendemain korité dafa war a def spécial korité ba mu saf waaw pour la mi ngi nii toog mi ngi ñëw si Ngóone Ndour léegi ne ko bu mu génn pour loo ngi ñëw mu jox ko 500000 pour man non Youssou Ndour bu mu bu mu génn na tëdd na bu mu recevoir kenn. na tëdd parce que spécial korité bi. kooku. Euh, voilà dafay revenir en force quoi. ok merci Bouba. et puis salue-moi papi euh, euh, Philippe Philippe de ma part ah ok. ok. Bouba la xanaa. Bouba Ndour la eh, eh, eh, ah ma ko wax mu canaliser euh, Boy Ndiaga quoi xam ah, nga Ndiaga moom. oui. mën naa la kii poser benn question. avec une très grande plaisir. d'accord juste sama copine bi dafa ñëw. Youssou Ndour rek moo fi indi ñu ngi jóge ba Tamba. ah ok ah, tu as fait des kilomètres donc. Youssou Ndour euh, bon gis Youssou si si si si yan anam quoi yan anam. xam nga maanaam booy gis nit di nga xam di nga xam si yan anam nga koy seetee. koo bëgg boo duggee sama néeg da nga gis poster yu sundur yi moo ko ràññee. gis ko pour wax lan sundur wax ndax way wala dafa way say maam wala un de de cent ans. yooyu fi def dëgg ah. a remercier ndax sundur lu def Sénégal. comme lan comme lan explique-toi. Ah, mais bien sûr mais. ah lan ak lan. non léegi xam nga lan la. sa aajo faju na non du xam parce que. fuloo na ko yóbbu ba kër Youssou Ndour. waaw man maa mën a léegi nag léegi nag xam nga lan lay def man Youssou audience am 30 000 laa koy laajee. mais yéen comme que da ngeen a jógee ba Tamba 15000 laa koy defaree. non te 15000 sax pour pour chauffeur bi la mu jënd essence. donc ok léegi bàyyi ñu terminer lii après ñu daal di dem ah. bi yéen seen tey dafa caramélisé ah. oui gis nañu ko kañ. kii moom fan si dëgg la quoi. tu aimes beaucoup Youssou Ndour ah. <laughs> puls. Euh, non defal ko. bii jeex na quoi. ku ko bëgg fekk na ko fekk cosaan waaye tamit. waaye maa ngi Sénégal muy kéemande quoi. maa ngi Dramé. Sénégal yaa ko kéemande. Dramé il kéemande man la man la Bouba Ndour de. mais <laughs> booy. yow yaay kii Pulo Sëbëru Yusuf. ah mais booy bu ma taxaw fi lu ma dégg yow yaa ne Pulo yow. ah <laughs> les Pulo. Madi Dramé mais man yow barki dem concert Youssou bi woon fële it en Italie laa xaw France te après Youssou mujj dem Amérique laa ñu jox ko foofu kii boobu affaire bu ñu joxoon Youssou Amérique la. affaire sage-femme bi pour xeex si <laughs> jox Youssou. waaw pour xeex si biir kooku docteur honoris causa la booy. <laughs> nara pour xeex si buru bi la meen boo yéen meen ñu ñàkk fayda ngeen jarul di ree ko meen ñu manque ngeen ah avec votre personnalité avec votre dignité ah, avec mais yéen mais yépp ñu mel ne yéen genre yu mel ni nan leen mën a di tegee dil wala di leen trompé wala di leen nax. kàpp e booy kii subir kàpp bi booy foo jëlee kàpp TFM bi. ma ko may. ah booy dikkoon Roofoo Thiès daal ñoo la ko may yow tim nga sol kàpp bi rek di wër TFM TFM TFM xam nga yéen yéen a yàq deru gaa yi TFM quoi yéen di war dem leer na ba di da di jël xaalisu jàmbur naan ay mën naa leen a indil ay Dakar na door paa mën naa leen a ay waa Roofo mën naa leen a indil ay bu bëggee gis Youssou Ndour comme baat tontu la di yàq deru waa TFM surtout deru caméraman yi ndax TFM da ngay dem sax biir TFM barki dem maa ngi monté ci porte bi dégg fa problème bu rëy. ah ci cameraman bu buñ ne bu dem engagé na mën naa indi équipe bu Dakar na door paa ñu jox ko xaalis bu tëdd ca lekk ko xam nga kon yére teg dil yooyu yére war di teg dil yooyu yëpp yére def yooya mais attention pote pote sa place bi pote place bi danaa ko tëj pote à chaque fois pote les mêmes faits a chaque fois porter les mêmes problèmes à chaque fois porter les mêmes gens à chaque fois porter les mêmes vagabonds à chaque fois porter les mêmes porter quest ki ñu ma tuddee tërëdi rek. ñu naan jikko di ko jël ci sa turandoo. ñaan bu sotti sonal ba. la prochaine fois je vais fermer place. dootuma ko def. est-ce bien clair. très clair. Eh, yow jugalee booy. xaw ma sa kaf yi mel ne bale douce. fan yële yàggul dara daje nañ fi nga yaa dóoroon aatu dama am lu ma la expliqué woon dafa ne woon naa da nekk nit booy boo ma gisee dara baalu ma la mais la prochaine fois booy xoole la ma defoon aatu dinaa la ko def. mooy tuuti dara la allez door. loolu ñu dem. ma boo waay door waay sa. sa kos si biir ma laab oo. Oh. ah costume day gudd tuuti wàcc nekk près du corps wala sax kii mais booy bi costume bi gannaaw la ah. yaasa lay niroo nii bi nag comme yaasa. c'est tout tout tout mais yéen attention ah. mais badam attention. mais gis ngeen ma man. Mm-hmm. bi may ñëw fii kan laa àndal. lu mu bokk ak Youssou Ndour. lu mu bokk ak Ndiaga booba lu mu bokk ak Ngoné Ndour booba lu mu bokk ak Ibou Ndour kon xam ngeen ni booba ça fait partie de la famille Ndour di ko jege Youssou Ndour très bon kan ñoo ànd ak moom taxaw fii yow kon yéen bu ma nee leen mën naa leen yóbbu ci Youssou Ndour yéen gis ko da ngeen ko gëmal du ngeen ko gëm yéen waxkatu dëgg baa ngi ameewul fii de ma wuy war ngeen a mën a gis yu de. ah loolu de lañ bëgg. loolu de lañ bëgg moom yow de di nga yow la porte est ouverte. Ah, voilà loolu xolal. yaay seet heure ba ko bëggee ak naa bi jamono bi ni ko bëggee ak waxtu ba ko bëggee xolal rek. da koy dox de. nga di gis yu yow yu eh. yi man maay bras droit maay garde corps am yëfu mën dem ci àdduna ko la maay na ci wetam brigadier père. loolu dëgg la. xoolal ren maa tax mu ren ren ji man maa tax mu annulé Bercy ndax maa ne ko sécurité ba fa ne doyul te baaxul quoi bàyyil ma dem Bercy xool sécurité ba xam doy na wala doyul xoolal ci mu jox ma vol ma dem Bercy xoolal bi ma demee xool xam sécurité ba doyul ma ne ko yiw mu ne ma père ma ne ko sécurité ba doy yow mu ne ma famm naa ko ba doyoon père. wax na dëgg te Youssou. permis moo ko gënal Bercy. fi mu ne perey berseem kon nag boo tëddee nelawal te xam ne dina la fa yóbbu. lépp lu ci mënti doon daal xoolal eh ba tey yaa ngi sama ndam ba kóol